ban euh, Silane bii nii nii fii nii. waaw maa ngi uh-huh. maa ngi leen a fekk. yaa yoon bi nii rek. waaw léegi ah. hectare bi yëpp. hectare bi yëpp dañ ko mën a dox. 14000 ah, mètres carrés. ñun sax dañu fay yàggu ndax fii day jub. waaw pour man da ngeen may topp damaa bëggul leer rek de. gis nga courant bu bëggee courant day difficile bay bëgg a dee day facile maa ko day difficile. day facile bay bëgg a dee xool nañ ko mën na pompe mën na lii. lu xew TV. seen YouTube sénégalaise. da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay siyaar bu baax di jox sa wàccuwaay di la màggal bu baax a baax a baax a baax a baax maanaam ñun. yàlla dafa dogal euh, yu mel nii dañ ci sawar di dugg wala ñu ciy wax voilà parce que ci dëkk bi leen dëkk yàlla dogal nag euh, ñuy doomi dëkk bi nag te yàgg ci dëkk bi lool du ñuy mag ay ndaw lan <coughs> te lu yenu maanaat euh, macha allah boo ko déggee di nga ko xam vidéo bi déglu nañ ko ba mu jeex pratiquement waaye man première réaction bi may njëkk a wax mooy police Sénégal police Sénégal defu ci seen liggéey te man jàpp naa ne ñenn yi bokk def ñu seen liggéey ndax li tax bari na ci ñu ci baree baree baree bare dara ñoru leen lu xaalis fu mu ko teg mooy ndax mbir boo ci boo ciy wax tamit faaw nga am nga dund ko baa nga jege ko dund te man dama ko dund parce que euh, dawal naa taxi ay at léegi nekkatuma chauffeur taxi bi mais chauffeur service la di su ma nee dawal naa taxi sax war nañoo comprendre ne réaction bi may njëkk am mooy xam na diggante taximan ak policier kooku soxlawul sax ñu naan ndax kii xam na policier man je connais policier bu baax xam naa ko li ma gën a marqué ci police Sénégal mooy def nan ma loo xam ne man maa ko dund man maa jugee Masaalikul Jinaan ñëw Kolobaan war a dem pompier yor sama taxi ñëw ba egg si pomp ñëw ba egg si Kolobaan war a jël pompier bi ci autoroute bi motariste dab ma diggante dix heures onze heures du matin ba mu ma dabee jaawale ma ak beneen oto ba mu ma dabee dafa daw ba wër ma ci autoroute bi ne ma yow xamoon naa ne dinaa la jàpp ma ne ko ci lan mu ne ma yow Padoa ba fii maa lay dàq ma ne ko man de Colobane laa génn Masaalikul Jinaan laa génn ñëw Colobane xam nga lu ma njëkk a wax da ngay fen baat boobu la njëkk a utilisé ma ne cëpp wàcc mu ne ma dugal sa oto ma dugaat mu laaj ma këyit yëpp dama imbécile traité ma comme imbécile nga yow bindal ma attestation joxu ma ko mais daf ko sànni man loolu maa ko dund personnellement ci policier loolu man maa ko dund personnellement ci policier ak yeneen ak yeneen yu ma dund xañ ne lii day loo xam ne du ma ko mën a fàtte suma dund kon côté boobu nga wax ci côté policier moom ci côté police Sénégal yi si def seen liggéey boobu boo amee ñu néew la ñu néew a néew a néew parce que ñoom dem nañ ba jàppee seen bopp jàppewuñu seen bopp sax comme nit duñ kaf duñ ree xanaa nga jox leen xaalis mooy lu ko may lijjantiwuñu la beneen bi mooy cas Mouhamed Ndiaye affaire yi coow li ba mu amee jour ba mu njëkkee def euh, xalaas def lam ciy def man personnellement yor naa numéro Mouhamed Ndiaye yor naa numéro Ndoye Bane maa ngi am benn vidéo boo xamante ni comme Mouhamed Ndiaye dafa taxaw moom wax ne moom am na gel bu fa nekkoon man vidéo complet bi laa am j'espère que la ko envoyé vidéo complet bi lu mu daggul dara ma envoyé ko moom moom Mamadou Mouhamed Ndiaye ne ko est-ce que déglu nga vidéo bi te source yooyu nga xam ne moom nga am war nga ko envoyé vidéo bii ma la envoyé te nii laa ko par audio liir na audio bi liir na vidéo bi dafa benn réaction mais journaliste dafa yàqu xawatina bu Sénégal parce que jamono jiñ toll nii nit ñi dëggootuñu te duñ wax dëgg parce que mënuma comprendre nga ne ma nga ne ma man journaliste la di bàkkoo naan Cissé laa ko jàngee ci école yi gën a mag nangam nangam boo gisee sax koo xamante nii mu ngi def beneen affaire te jàngee ko école ba nga ko jàngee sax yaa ngi koy clash te tey bu nee kan moo gën a niil kan moo gën a ñàkk mën a wax dëgg ñu ne la yow loolu du liggéey journaliste dëgg la journaliste boo jëlee say sources ba pare waroo toogaat di ko wax bu ko dara jaral waaye nag na doon mu fa nga koy jëlee ak lu jël na doon lu leer nañ ndax nit ki da nga Charles Faye nag man si moom laay muccee euh, Charles Faye man dama yaakaar ne déglu naa sa biir wax yow nga ne nit koo xamee lim jàng jàng na ko ay at yow jàngoo ko benn weer buñ toogee di wax kan la ñuy déglu mais Charles Faye man même bu fekkee journaliste la aussi ci ni ma ko déggee man jàpp naa ne nekkul professionnel ba man mosuma déggee ba ma dalee di euh, déglu journal walla di déglu musuma dégg Sarla Faye maanaam mus na présenter benn article wala benn journal wala mu bind lenn loo xamee marqué na Sénégalais man musuma ko xam Sarla Faye TFM laa ko xamee Sarla Faye su ma ko xamee à cause de euh, làmb ji fi Youssou Ndour mais ci lan xamee kuy Sarla Faye quatre vingt pour cent Sénégalais yi mais ñu baal ma mais waa TFM dañuy naxaate dañuy naxaate gis nga nit tele ak rajo boo fay teg nit muy wax daa war a doon nit koo xama nit koo xamante ni nit ku xam ne muy wax la nit kuy wax dëgg waaye di wax te li ngay wax dara dara dara du ci dëgg dara du ci dëgg baax war nga moytu loolu man de personnellement personnellement lu ma xamul lu ma xamul wala lu ma dund du ma ko wax mais Sarr fay mii ku gis gisaat ko xool ko xool ko xam ne lii kii du waxkatu dëgg ndax boo naan nit ma wax te nit kooku boo amee looy wax kay te am de média nga am ngay moyen ci télé bi am nga borom baat nga ci télé bi mais wool ñaari caméra benn caméra mu ñëw ñu dëpp ko caméra yow nga pose ko question luñ koy yàq moo kooku ñu yàq ko waaye man di woo ma wax ana ki ko wax léegi nag génne ki ko wax euh, ñu indi mango yi ne fe waa ci yoon bi nii rek dañuy dox ah, hectare bi yëpp hectare bi yëpp dañ ko mën a dox ah, quatorze mille mètres carrés créé ñun sax dañ fay yàggu ndax fii day jib e eh, pour man da ngeen may topp dama bëggul leer rek de mille mètres carrés gis nga courant bu bëggee courant day difficile day bëgg a dee